ak Sacré Cœur benn ci Almadi Diamniadio achelem Joal Malika Mamel Mariste Ouakam Plateau Yoff ak Zac Mbao ci région yi am nañ ci fukk ak benn yu tëddee ñaar ci Kolda ak benn ci Matam Mbour Popenguine Somone Tamba Thiès ak Ziguinchor juróom-ñett fukk ak ñaar si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bës nikki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñaar fukk ak ñett ñoo nekk réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan ba su démb alarba juróom-ñaari fan ci weeru avril bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tànn ci bësu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom téeméer ak juróom fukk wér nañ ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett si lalu hôpital yi ak malade yi xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen a àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé